million de équivalence baril pétrole soo jëlee GTA c'est trois trois virgule cinq milliards de barils bu production ba génne état di sam redevance six pour cent li des mooy la production nette kii investi génne cost oil mooy li mu dépensé si plateforme yëpp day day génne soixante quinze pour cent de la production mhm. li des maintenant mooy le profit oil boobu la Sénégal di jël wàllam bu ndaw non li des mooy le bénéfice non c'est-à-dire en ma chef man man man suñu suñu man ce que ce que j'aurais proposé qu'on aille vers des contrats de service exploitel lii nga jël une partie man ma jël les parties et pas de concession c'est-à-dire concession il n'en est pas question trois contrats yi moom ma ci di il n'en est pas question qu'on donne une concession à quelqu'un mu def lu ko neex Contrat de recherche de partage, nous, on est toujours les perdants. Le business model des pays du Golfe, c'est des contrats de service. tout à fait et loolu moo tax ñoom ñu maîtriser seen pétrole. et pourquoi pas nous maa ngi ñëw ci yow docteur en attendant Mansour loo yaakaar ne moom moo war a nekk <laughs> priorité économique bu Bassirou Diomaye Faye en ce qui concerne bien sûr contrat gazier yi ak pétrolier yi ñuy tudd fii sànq ba tey. priorité économique. waaw ci ci ci est-ce que dañu wax priorité en fait de manière générale. waaw de manière générale. waaw loolu moom c'est l'emploi des jeunes man loolu laa jàpp. emploi jeune moom la moom sax président commencé. donc euh, c'est l'emploi des jeunes d'autant plus que des jeunes ont accepté de prendre euh, des balles de leur poitrine am na ci xale yu bari yoo xamante ne bii fu mel ni Ziguinchor pour un oui ou bien pour un non ay balles réelles lañ leen doon dóor. Mm-hmm. laissant des familles éplorées. Mm-hmm. ñi nga xamante ne bii li xew nii tey mënuñu woon xaar ci géej gi lañ jaar euh, peut-être du fait de leur empressement ou bien de la fougue de jeunesse loolu tey jii mënuñoo tàmbalee fenn lu dul dañoo teg par exemple une politique d'emploi autrement dit une politique de jeunesse boo xamante ne bii dafay jël en compte seen aspiration source ANSD 75 pour cent je pense ou bien 70 pour cent des Sénégalais. ont moins de trente cinq ans. soixante seize pour cent ah. man soixante quinze laa lire. Euh, cinquante pour cent virgule neuf quoi man maa donc. <laughs> <laughs> donc euh, mais benn rek soixante quinze soixante seize c'est pareil. cinquante pour cent de sénégalais ont moins de dix neuf ans ans loolu lim lay jàngal mooy euh, Sénégal en réalité defaguñ ba tey wala accordé guñ jusqu'à présent en fait nos politiques. aux aspirations en fait de la jeunesse gis nga tey bu ñu fexe woon ba lijjanti loolu dina am yu bëree baree bari bari yoo xamante ni bii c'est ni koy waxatee ci suñuy jafe-jafe la bokk danañ ko saafara. bu nekkee da ngaa ñëw ci priorité économique yi d'extraction minière fu mel ni Kédougou nga xamante ni bii suñu premier lingot d'or je pense am nañu ne ça date de 1999 alors que Habib Thiam le défunt Habib Thiam était premier ministre. mais boo fa demee seen jigéen doo gis ñu takk or. loolu vraiment c'est des contrastes de géographie. que personne ne peut expliquer dans ce pays. boo demee dans dans dans le nord ay le phosphate demande te demandes en fait sénégalais lan lañ ci def. mën nga jël fer bi mën nga jël textile encore une fois am na tissu yoo xamante ni bii mais. mu ngi dugg ci réew mi defe naa ci tabaski daaw ñu tuddee ko pirxa wala lafaya pirxa cent cinquante mille francs lay jar base cinq cent mille moom maa ko waxee noonu quoi pour waaw si si si mooy mooy cent cinquante mille mooy bi gën a ndaw bien pour la bourse moyenne jibi mhm. saar li may wax ni yaa ngi ne fii di ni ci sa téléphone bi nii non non man maa ngi maa ngi lay déglu de di yaa ngi wax ma lay ree <laughs> li muy wax nii non si maa ngi ci yow <laughs> yaa ngi dégg tey jii am na ci yoo xamante ne bii fabrication. tissu boobu gaa yi ñooy wax ne sa jaf bi dafa leerul. en même temps sama gaa bëgg la leeralal sa caméra bi quoi. sama caméra bi waaw. ci. yaa ngi dégg donc tey jii lu mel ni Pirxa cent cinquante mille deux cent trois cent ba cinq cent mille buñ la nee fabrication bi base bi am na ci yoo xam ne coton la am na yoo xam ne nylon la. Mm-hmm. ba jusqu'après notre indépendance Sénégal ak Mali bokkoon na ñi nga xamante ne bi ñoo gën a am taxawaay ci wàllu coton. Hmm. tey en 2024 fan lañ ci toll. buñ la waxee ni Sotiba Simpafric ak yenn xeetu tissu yi Sodefitex Sodefitex et cetera. yooyu dafa nekkoon yoo xamante ne bii ay fleuron lañu. bu la neexee nga def déclinaison aussi tamit sur euh, comment dirais-je encore euh, l'agroalimentaire nga xam ne hmm. Sonacos taxawaayam. en termes de d'huilerie en termes de comment dirais-je encore d'arachide et cetera et cetera kooku ñun dañoo toog seetaan ba nga xamante ne bii daanaka lépp dafa ndërmeelu. Mm-hmm. donc man je pense que ce gouvernement la lépp priorité la war a doon. Mm-hmm. waaw lépp dafa doon loo xamante ne bii priorité la donc euh, loolu buñ ci taxawee dina am yu bare bare bare yoo xamante ne bii Sénégal yi dinañ ci gis seen bopp loolu. te ñoom ils sont conscients de ça ba pare dafa am ñaari exemple boo xamante ni peut-être c'est un exemple à à nuñ koy waxatee à vers moitié moitié pleine mooy benn bi dañu doon wax ne président Macky Sall il est né après les indépendances donc moom mooy ki gënoon war a mën a comprendre les enjeux de la jeunesse mm-hmm. les difficultés de la jeunesse autrement di leur aspiration il a réussi ou pas c'est un débat tey ku mel ni basiru Bassirou Diomaye Faye à 44 ans yàlla defal lim la defal hmm. loolu c'est symptomatique d'une jeunesse boo xamante ne bi war nañoo mën a juddee ci àll bu xonq bi hmm. jàng fi ñu war a jàng parfois sax ñuy réviser seen leçon ci taatu hmm. poto courant yi wala parfois sax ci ay sondeel ñëw université Anta Diop de Dakar def les petits métiers def kaso génn tàbbi ci pale bi loolu xam nga lu mu war a jàngale. lan la war a mooy jeunesse bi war nañoo mën a toog fii ci dëkk bi réussir fi man yàgg naa wax ni Sénégal. wala par exemple immigration jafe na nit tukki jël benn million bu bokk ndey ak baay amee ko bitim réew wala boo ko fa amee tamit di nga ci fay impôt ak fiscalité ba nga xamante ne daf lay gënal sax nga toog fii ci dëkk bi donc en réalité dafa war a fouetter suñu égo dafa war a fouetter notre notre comment dirais-je encore Euh, suñu égo la war a foyete de telle sorte que jeunesse bi gën a gëm dëkk bi. Uh-huh. sinon dafay am benn genre rupture d'égalité. am na dëkk yoo xamante ne bii ci réew mi chaque jour moo wax ko ils sont condamnés à vivre dans la pauvreté. moo xam Fatick la dans commune moo xam Podor la dans commune moo xam Diourbel la dans ces communes. moo xam euh, n'importe quelle localité. Mm-hmm. am na ci ñoo xamante ni bii bu ñu organiser woon audience foraine ñu am kayitu juddu. Mm-hmm. am na ci dëkk yoo xamante ni bii boo fa demee tey sa jabar tollu diggante boo deful Wave wala Orange Money vingt cinq mille ambulance du jël sa jabar pour rawale ko. Mm-hmm. am na dëkk yoo xamante ni bii wala da ngay jël dëkk boo xam ne dafa nekk ci point A kii nekk ci point B A ak B am courant. village intermédiaire bi nga xam ne moom mu ngi gis poto yi gis adduction d'eau yi amul courant amul ndox mhm. am na dëkk yoo xamante ne bii tey bu dee dañoo jaar ci RN1 bi war a jàng xale yi dañuy dox huit neuf kilomètres dix kilomètres boo demee ci comme par exemple localité wu ministre de l'environnement bi nga xam ne il est de Fissel boo ci boolee Mbadat c'est huit kilomètres. Mbadaan Fissel Mbadaan Mbadat waaw c'est huit kilomètres. bu la waa Fissel jàppee Fissel Mbadaa. mbadat ficelle mbaadaan mbadat la <laughs> mbadat non dama lay wax lu ma xam kon mbaadaan boo bu leen neexee <laughs> biñ ma dàqee soleil dama profité dëkkiwu mu soleil la newoon soleil lañ xamante muy def ay interview yu engagé di jël interview di yow laa bëgg man dem na xoolal soleil bi est euh, jox ma boobu ci njeexital waaye yëkkale man damaa profité yenn dëkk yi nga xamante ne bii. Mansour loolu est-ce que waa ji dafa daw dëgg la xaw ma ci xaw ma ci dara loolu du ma jox. Mansour yéen bu ngeen ma jox vidéo bi bokkal. février 2020 février 8 février 2020 wax dëgg lu ma rek waxuma loolu. non man loolu du ma ci wax. pas le débat la wala Mbadat daal mais laa jàpp. non fa dem dëkk yooyu da nga gis xale yi. dañuy dox lu jege huit kilomètres boo demee dëkk bu ñuy wax tase pël waaw guy gi waaw bi Youssou ak Wally Seck di way comprendre nga donc dëkk yu mel ni ay taset pël vraiment c'est des localités yoo xamante ne bii soriwul trop parce que la notion de euh, de de de, de distance c'est à relativiser tey jii mën naa dëkk dakaar ne damay dem Thiès soriwul ci man ki dëkkul Louga boo ko nee Saint-Louis dafa sori c'est à relativiser. ki dëkk Diourbel boo ko nee Kaolack dafa sori une de temps euh, de de de de kii la de trajet daf la naan dafa sori euh, non dafa naan soriwul donc la notion de distance c'est à relativiser de toute façon daal man yaakaar naa ñi nga xamante ni bii ñoom la ñu fal xam nañu ci yan portefeuille la ñu war a fëgg xam nañu yan levier la ñu war a appuyer xam nañu aussi tamit en réalité. fan la ñu war a mën a jaar parce que ci diggéey loolu daf ciy feeñ léegi nag à la concrétisation en fait des promesses d'ailleurs le président avocat de Ndingler Bassirou wax na ko nee na dinaa fexe ba nga xamante ne bii loolu de sa de son message à la nation mhm. seeni rêve ma concrétiser ko à travers la charte de sa gouvernance parce que yàgg naa ko wax Sénégal cour de contrôle rek li ñuy feeñal ci ay njublang bu ñu fexe woon. ba loolu ñu toog n plus un loolu amul sans compter d'autres pratiques yi nga xamante ne bii ça échappe au corps de contrôle loolu tey jii ça échappe au corps mais on a vu un ministre et conduire une délégation d'auditeurs de la Cour des comptes. man liir naa un rapport produit par un consortium de journalistes d'investigation qui parlait de la fuite des capitaux de nos pays africains. Mmh. Que dit rapport? Le rapport dit bu ñu fexewoon woon ba fuite des capitaux yooyu yëpp des Afrique ñu investir ko dans le secteur infrastructure routier nee na dootuñu am benn problème mu tali. Mhm. dootuñu ko am léegi imagine yi nga xamante ne bii mënuñu ko documenter. et que mu ngi am. tout à te ak a te dafa bëri parce que pour produire un rapport da ngay bind. y a le euh, y a y kii comment on appelle encore le sens. Euh, Euh, c'est-à-dire boo bindee rapport bi la personne en question da ko koy retourne da ko koy envoyé moom mu def ay observation et léegi imaginel yow on fait un rapport sur sur en fait ta on par exemple les auditeurs sont dans l'incapacité mmh. de euh, pouvoir t'envoyer en fait le rapport wala yow yaa ngi def ay njublang yoo xamante ne bii sax ñoom ça cela échappe à leur contrôle mm-hmm. loolu man je pense que ne tey bu ñu fexee ba fii ak deux mille vingt cinq mhm. yaa ngi dégg yooyu noonu ñu saafara ko. am na benn rek sénégalais yi sénégalais yi danañ ci gis seen bopp bu baax a baax a baax. gis euh, kii kii bisaar nag gaa ñuy wax ci ñi nga xamante ne ñoo nekk dans le secteur de la peinture automobile mhm. produit maanaam lépp loo xam ni composante la. Mhm. ci acteurs yooyu lépp dañ koy importer. te dafa cher. te dafa cher. kilo peinture yi ci gën a yomb cinquante mille franc lay jar. yi ci gën a yomb day dem ba trois cent mille franc. Mm-hmm. Mm-hmm. espace foncier bi nga nekk. dafa bëriwul c'est à titre révocable c'est-à-dire yow da ngay toog fenn jibi saar ñëw ne la fii maa moom ñu yanu la yóbbu. Mm-hmm. jëlal la secteur c'est-à-dire les euh, le comment on appelle ça encore les mécaniciens. man gis naa koo xamante ne le président Macky Sall l'a reçu deux fois femme oto moo nekk fii ci foire bi. Mhm. président Macky joxe na instruction ñaari yoon. mais pour ñu bàyyi ko foofu. ñaari yoon man loolu moom moo ko nettali. mu jël fukki million jox ko benn avocat bu ñëpp xam jusqu'à présent elle n'arrive pas à entrer à possession de cet espace foncier jëlal le cas des ébénistes. koo ci gis ku nekk un patron d'atelier moo xam mécanicien la moo xam ébéniste la moo xam et cetera koo ci gis am na deux trois quatre apprentis. Mmh. non seulement ils ne sont pas formalisés parce que aussi mm-hmm. tamit formalisation incitation la. Mm-hmm. da ngay wax nit ki. ban njëriñ moo am ci nga formalisé wu mu ngi mel ni par exemple fay impôt mm-hmm. incitation la boo fayee impôt dinañ la tabaxal hôpital mais bu dee da fay impôt sëriñ bi yow à côté da ngay gis ñoo xamante ne bi ay non-lieux fiscaux lañ leen di defal à coup de milliards mais y a un problème y a une rupture d'égalité donc dafa am métier yoo xamante ne c'est des métiers de pourvoyeur d'emploi état bi bu accompagner wul ñooñu mais en fait du am benn genre marketing à la fois territorial et social boo xamante ne mooy tax mais par exemple un technicien de surface dans cette dans un technicien de surface dans certains pays ma tu n'as pas à envier un journaliste un docteur quelque part un médecin mhm. parce que dafa am benn marketing bu koy accompagner ba nga xamante ne bii ça peut inciter d'autres jeunes à venir ba pare am na formation yoo xamante ne trois mois six mois tu opération tu as tu as parlé tu as parlé de tu as parlé de peinture euh, docteur voilà tour table ah, docteur Adjogo Adjogo mhm. fa ñuy fa j'entends voilà j'entends tout le temps les gens disent que Diogo am na gaz ou pétrole mhm. zircon du moins est-ce que xam est-ce que vous êtes au courant que jogo am na yeneen substance deux substances benn bi ñu koy oowee ilménite ilménite waaw ilménite bi nga xamante ni moom mooy coloré voilà ilménite mooy <laughs> coloré voilà mooy coloré ah, mooy coloré peinture bi mooy tax peinture bi di am color bi muy am am na beneen substance aussi bu tudd mm-hmm. rutile rutile moom la ñuy defaree la baguette bi soudeur bi di soudé maintenant lii euh, juste que ni parce que xam nañ ni que ni tey jii nii quoi qu'on puisse dire ah il faut tamit qu'on soit réaliste il faut qu'on soit réaliste d'accord pour man y a des priorités te les priorités tey mu ngi nekk euh, réforme institutionnelle yi mu ngi nekk charte de la vie mu ngi nekk justice loi de finance rectificatif euh, pour le développement moi je pense que ni ou pour réduire le chômage l'industrialisation mooy une vraie révolution révolution de l'industrialisation maintenant sérieusement tu as parlé te li nga fi wax man gëm naa ni du tâtonnement mhm. c'est un projet mais bu fi nekk quoi docteur est-ce que ñun tey jii nii mën nañ taxaw ñu ne fii ak 2035 par exemple sama doom incha allah dina fekk mu am euh, euh, ñu ngi ci 2000 euh, il a 10 ans fii ak